may soppi ñëpp kenn rafet rafetluwul ni ma waxee man ba may wax la ma ca jublu yàlla xam na man mi wax itam xam naa ca jublu mais comme am na ñoo xam ni wax ji neexu te amna na ñoo xam ni ñi ngi ci bëgg a occasionné wu bëgg ci profité pour jug jéem laa yàqal ci bépp sénégalais boo xam ni nga sama intervention na ma waxee neexu la maa ngi lay fekk fa nga nekk di la baalu ak man Oustaz Modou Fall ci wax ji nga xam ni ko mu touché la